doore ko ci maladi maladie tëdd ci hôpitaux yi ak ñi yàlla seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jégal leen seen i bàkkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla jàmmal la yàlla bàyyi la ci sunu kanam nga yàgg ñoo ñaanal waaye kilifa ada itam yàlla dooleel leen ba li ñu leen dénk ñu mën ci dara yàlla sottal projet yëpp waaye nguur geeg ku jegeeg ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm ndax euh, lu dul jàmm jàmm ko gën te jaboot jàmmay mbokkam jàmm joojee ñu ñaanal ko képp koo xamante ni yaa ngi toog jamono bi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan rawatina nga nekk ci biir réew mi ñi di la jox cër bu mat sëkk waaye itam jox cër itam ñi ñuy ko ci 88 point 4 seen rajo origine FM ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ziar ziar itam mbokk yi nga xamante ni eh, jàpp nañu ne seen wërsëg ca biti la ñu nekk yàlla nañu dajeek moom yàlla sàmm leen fa yiir leen ci réew yi ñu nekk def fa jàmm ak sutura xéewal waaye itam sàmm leen ba ñu dellu siwaat ci réew mi gisewaat ak seenu njaboot eh, di dellu siwaat nag eh, tey ci àllarba ji rek gannaaw ba ñu bëree ni ki démb di ndokkeel sunu mbokki chrétiens yi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi wax dëgg yàlla buñ nee yar rek buñ ko seetee ci ñoom gis ko fa buñ nee ay teggin itam buñ ko seetee ci ñoom gis ko fa rawatina itam gëm seen bopp kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan rek yàlla nañ ko teewe at yu bari te rafetu fekkin bu deewee naree ñaaw yàlla na mel ni ren ji lépp mujj ci nettali ñu dellu siwaat nag ca lañ doon wax rek eh, ci eh, sunu thème de la semaine di wax ne rek eh, sama réalisatrice bi Roxoye Daba Mbodj bu euh, Tunkara euh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax ma nga ca réalisation ba incha allah dinañu kaleel sunu élément ñu mën ko seetaan kàddu askan wi euh, ci jikko yi yàqu yi nga xamante ni moom la ñu gis ci réew mi waaye nag yeggaguñu foofu dinañ leen ubbil téléphone bi itam àndandoo ko ak ci 88 628 14 13 waaye itam danañu àndandoo ak imam équipe bu kër gi daal laa koy tuddee dootuma sax lim équipe bu kër gi laa koy tuddee macha allah ñu fas yéene ànd rek ci waxtaan wi. ana nañ lañ koy tëralee ànd ko yéen ñi nga xamante ni yéenay jaar ci téléphone bi kon euh, yaa imam ñu ngi lay nuyu di la ziar. Mm. di la bàyyi nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi. waaw ñu ngi lay fay Adja Mbayang mm-hmm. di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa radiyallahu an cheikhina tijani wa an jamii xulafaihi wa ahli tariqatihi xaaja Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di nuyu Adja Ndey Ba te ñu gën ko miin ci Ndey Petaaw tabarakallahu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tabarakallahu borom kër gi ak soxnaam di nuyu personnel bi fi nekk yëpp tabarakallahu rawatina suñu mbokki techniciens yi nga xam ne ñoo rafetal liggéey bi ba adduna bi yëpp mën ci jot mm. tabarakallahu di nuyu kilifa diine yëpp a ah tabarakallahu kontaan nanu Euh, lool ci euh, thème yi nga xam ne ñu ngi ko fi euh, indi. Mhm. surtout thème bi nga xam ne moo di yar. Mhm. nga xam ne ci yar la nit di defaroo. Mhm. ci la société di defaroo. tabarakallahu kon ñu xaar rek lu ngeen ñu ci indi rek ci ay question ñu mën ci dugg ak yéen. <laughs> incha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. jànq noo def. sant yàlla bu mu bëri yaa ngi am ana sama rakk xol. Hmm. nga ko bëgg a nangu si yàgg <laughs> ci awa rek awa ba di <laughs> ma ne ko baadu maa ngi ci moom ah, ah. maa ngi lay nuyu <laughs> mhm. di la ziar di sukk omi suuf comme ni ma koy defee saa su nekk di nuyu képp ñuy seetaan sur la 2STV mhm. di ko njëkkee sama yaay ji dana Youssou Bambar Gueye surtout Ndakaaru yaay awa sama rakki xol di ñaanal sama baay bu mu yàgg fi lool baax te ànd ak wér di leen wax ne ngi suñu troisième numéro de la semaine mhm. ñu fas yéene ànd ak seen émission kër gi daal di koy waxtaane waxtaaj ku si la sama yimpañ rek delluwaat la kàddu gi waaw incha allahu taala di wax ne rek mbokk yi mën nañu àndandoo ak ñun euh, euh, mhm. wala numéro international bi mi ngi noonu ci suufu écran bi waaye nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi tey àndandoog ñoom fu fu ci waay mën a nekk rek mën ngaa woote ci émission bi su ko defee rek euh, loo yi nga xamante ni waa HD industrie mi ñu indil gaamu produit madaar yi indil nañu ko ñu mën ko bokk ak ñoom mën leen ko jox ndax nag wax leen ne yéen tax ñu indi ko fi te it nag bu ngeen ko fi bàyyee keneen du ko jël kon woote leen ngeen jaar ci ligne bi <coughs> su ko defee rek euh, seeni loo ngeen mën ko am lépp nag ñu ànd ko ak waa HD industrie mi ñu indil gaamu produit Madaar bi nga xamante ni bu nee sarax yaakaar naa ni sa biir kër rek mm-hmm. mooy lay matale waaw day feeñ gin kàcc moom mooy gin kàcc. fële lépp yem day feeñ moom day feeñ. parce que loo si laal rek. gis mm. gis gis si njariñ. waaw tubaarkàlla macha allah lépp si am njariñ. Mm-hmm. madaar beeg javel beeg ñoom yëpp. parfum de chambre man xam nga moom mooy gën a daaneel. gis naa léegi ngay laaj bois bi anam. waaw waaw bois bi nga joxoon imam. waaw boobu si bëgg parce que ma laal. kon yow damaa jox imam ba pare nga jël imam teg ko bët. si bois bi jaxase rek laa mën. waaw kay waaye xajoo sama digganteeg imam. xam nga ah. ndaw ak ba fa ñu fa ñu bokkee sori ndaw ak ba waaw kon man da ngeen ma ki seppi daal. ah caama ngi ci biir may wax kii di tisooli kii naan day tisooli <laughs> di waaw. <laughs> dañuy boole ñëpp ñu ngi ci biir kër gi mais daar moom macha allah comme ni ñu koy faral di waxee rek. Mm. rombati réccu la yéexati ñàkk ndax ku ko utiliser rek di nga si gis njariñ. ci mm-hmm. façon bu ne ak fànn bu ne. Mm-hmm. seetal beeg ñoom seen ak yooyu tabarkàlla macha allah xéewal la daal day dimbal jaboot. xéewal pire di dimbal jaboot donc mi ngi noonu waa HD industrie ñoo ñu ko indil. Mm-hmm. waaye nag euh, tey jii ñu dellusiwaat ci sunu thème rek ci jikko yi yàqu yi Euh, mu mel ni que nag euh, li fi yàqu dafa bari imam mm-hmm. euh, li koy defar néew lool mm-hmm. ndax yoon yi nga xamante ni dafay yàq mm-hmm. dafa bari te it nag man démb toog naa ba mu yàgg ma ne est-ce que jarit na ñuy wax d'après li ngay gis ndax man li ma dund ci jour 24 bi ci guddi dinaa ci ñëw incha allahu taala parce que dama ci mer lool dama ne na laf ay bagaasam jeeg ak këram nañu laf seen i bagage njogonal ca caba dramé ca wal fajri na laf ay bagage am kër gi moom kenn waxaalewu ko ndax ba ñu dalee wax ak léegi ñii naan am naa fukki at ak benn ñii naan juróom-ñetti at ñii naan ñeenti at te ba suñu jën yàlla tey chaque jour rek mu mel ni li ñuy wax dafay doon viagra bi dooleel affaire bi man yaa problème est-ce que jarat nañuy wax imam waaw wax bi moom <clears throat> doo xool sax ci euh, nit ñi mhm. dangay xool ci yàlla mi la waxloo mhm. ak bëgg a defar parce que wax nga fi euh, suñu émission passée. mais maanaam bu fukki nit dee gas fukki nit di suul. kii suul lum ko jaral. yow miy gas. war na la ko jaral waaw dëgg la dégg euh, ba tax na toujours damay wax ne. mag ñi sax ñoo ko bind. dañ ne ñaari xeex yi duñ fi jóg. xeexu njub ak jubadi. xeexu seytaane ak yàlla. Mm-hmm. duñu fi jóg. Euh, ba tax na aussi. li ma li li may dénk rek bépp jullit. Mm. mooy mu xam ne euh, am na lu ko war. dëgg balaa muy laaj yàlla àjjana. Mm-hmm. am na lu ko war. Mm-hmm. li ko war nag bokk na ci. mooy mu bokk ci ñi nga xamante ni dañuy defar. bañ a mm-hmm. bokk ci ñuy yàq. Euh, suñ borom subhaanahu wa euh, dafa bindu doomu aadama. mu am zahir am baatin. zahir bi mooy na lekk ba suur naan ba màndi am environnement bu baax mën a dund. dëgg mais bu dee baatin bi moom li koy defar nga xam ne mooy base mm. mooy yar bu rafet mm. parce que nit bu amul yar rek bàyyi ma la mm-hmm. mook rab yi benn lanu dëgg la euh, moo tax tubaab yi ak fi ñu toll ci wàllu xam-xam ak yépp mm. boo dundeek ñoom te yor yaru lislaam doo gis ay nit mais ay rab ngay gis mm-hmm. ay rab rab ngay gis parce que seen façon ni ñuy doxalee ci ngay xam ne ay ay ay rab ngay gis parce que ay ji ji koy rab dañu dundal seen bakkan mm-hmm. ba tax na bakkan boo ko dundalee parce que nit dañu wax ne euh, dafa am jikko yu nekk ci moom. jikko yàllaa ngi ci moom temps bu nekkee nitu dëgg di wax dëgg bañ a fen. moo yàlla ñoo yem jikko. Euh, jikkoy malaakaa ngi ci moom saa boo xamee ne jaam la. mu nangoo jóg jaamu ki ko bind. bàyyi ba guddi gi xaaj mu lal deram di jaamu yàlla. jikkoy malaaka la yor. Euh, maanaam rab la. Mhm. saa ko fekk saa boo ko fekkee mu summeeku di xeex jàppal ne rab la ndax boo demee ci àll bi looloo fa ne boo demee ci géej gi aussi looloo fa ne rab yi mënuñu lu dul rek boo dajale woon fii ay xaj léegi ñuy mbëwante mhm. boo fi dajale woon ay xar ñuy mbëkkante boo fi mhm. dajale ay ganaar noonu dëgg la doomu aadama nag ëpp na loolu kon boo ko fekkee muy xeex jàppal ne rab la su toogee ba diggu guddi ñëpp tëdd mu jóg jëm ca sëg yi hmm. di suuli liggéey ngir fexeel ne eh, eh, eh, tabaarkalla moroomam hmm. yor na jikkoy seytaane léegi nag ñu bëgg nga dundal ñaar yi hmm. mooy jikkoy yàlla ñeme dëgg di wax dëgg tabaarakallaahu génn ci neen ak caaxaan ñu bëgg aussi nga dundal bu malaaka bi mooy nga nangoo jaamu sa jaamu sa dëgg la mais ñaar yële moom dañoo bëgg nga rey ko ci sa bopp foofu la éducation bi ne ñu fexe ba lii rab ci yow ñu rey ko Mhm. fexe ba lii cey seytaane ci yow ñu rey ñu rey ko c'est ça foofu la éducation bi ne dëgg la alors ba tax na aussi soo gisee suñu mag ñi indi lu ñuy tuddee tariqa tariqa mhm. ci ci njëlbeenu lislaam amul woon mhm. l'islam bi mu ñëwee charia rek la woon mais bi fi yonent bi jógee dañu gis conflit bu doy waar ndax euh, saxaaba bu mu fonkoon ñu koy wax Seydina Ousmane dañu ko rey te ay jullit a ko rey fitna commencé dugg ci biir jullit ñi te dara waralu ko. Mhm. lul xëccoo nguur. ñu xam ne jikkoy rab. ak koy seytaane léegi mu ngi dugg si ci ci ci biir jullit ñi commencé yàq. dëgg ci la mag ñi nag ne. Mm. Euh, fokk ñu indi lu ñuy tuddee tarixa mm-hmm. ngir lan delloowaat nit ñi ci yàlla te defar seen xol. Mm-hmm. parce que yàlla ëllëg laajul dara lu dul xol bu mucc ayib. Mm-hmm. illa man ata allaha bi qalbin salim. xol bu mucc ayib boobu mooy dañuy fexe ba dindi ci yow rëy. Mm. dindi ci yaw soxor. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm. dindi ci yow mbañeel. Mm-hmm. dindi ci yow bëgg àdduna. def ci yow doylu. Mm-hmm. ñeme dëgg. tabe loo am bokk kook nit ñi. foofu foofu la tariqa di liggéeyee tariqa moom. dafa sharia mën na ñëw di liggéeyloo say cër ngay julli. mais du tax nga baax. dëgg la <laughs> yaa ngi dégg mën ngay woor te du tax nga baax. mën ngay aji màkka. te du tax nga baax mhm. kon mag ñi ñoom fa nga xamante ni fa la mbaax ga ne mooy xol ba mhm. nga xam ne mooy tax yàlla nangu julli gi nangu koor gi nangu lépp ñoom foofu la seen liggéey nekk looloo tax tarixa jóg am na solo moo tax bu ñu demee ba yàqu-yàqu bi mhm. dugg ci biir tarixa yi ba léegi nitu tarixa moo gën a bëgg àdduna kon nga xam ne crise bi ñu doon wax ci wàllu moral wax yàlla Euh, maanaam gagné nañu de trop. de trop waaw parce que hôpital bañ doon fa yañ doon fajo mm-hmm. léegi médecins yaa gën a feebar. dañ hmm? koy faj. mooy li nga laaj mooy mooy li nga wax léegi. vingt et unième siècle bi ñu nekk rek. c'est ça mhm. vingt et unième bi moom nga la ndax comme ko mhm. nekk rek boo demee mën nga fa génne loo xam ne dañ ko jooyanti. Mhm. te dafa am solo. parce que dañuy nit ki fi mu nekk. ni mu mel rek la fay indi. yow bu fekkee ne da nga mel neneen sa kër. boo ñëwee si télé moom nga fay indi. moom nga fay indi bu fekkee da nga mel neneen sa kër boo ñëwee si tarixa diine gi moom nga fay indi. dëgg la mu mel ne dafa nekk ay poñ yoo xamante nii. yar moom bu deñee si nit. si doomu aadama mm-hmm. dara desatu ci mm-hmm. léeg-léeg nga gis mag nga xam ne danga naa mag mii kat dafa yaroo sagoom waaw ndax lan bi mu nekkee xale yaruñu ko woon mm-hmm. te xale bu ñu yarul bi mu nekkee xale bu màggee nekk mag mu yaroo sagoom te mag bu yaroo sagoom du mën a yar ay doomam déedéet xamul ku xamul doo joxe dëgg la ku nekk li nga yor rek li nga am ngay joxe ku nekk li nga am rek ngay joxe dëgg la mu mel ni dafa nekk loo xamante nii comme ni ma la koy faral di waxee day gën di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku day dem ba fi ñuy mujjee ñun du ñu xam fan la ñuy teg suñu moo ma jaaxal ndax amatuñu lu ñu moomool suñu bopp mhm. lépp dañ koy jéggaane mhm. xam nga keroog euh, altine bi ñu ngi tegoon suñu loxo si théâtre yi am léegi mhm. amatul pauvreté Sénégal léegi moom boo koy seetaan boo nekkee bitim réew da nga naa man li ma doon ut si fii sax jaratul ma koy uti ji ndax ma nga sama réew sama dëkk dëgg la macha allah luxe dëgg la bu baax 100 pour cent di aussi xale yi jigéen yi nga xamante ne dañu toll ñoom tam si buntu àdduna te xamaguñu dara xalaatatuñu dem say kër goro nekk ak njëkke wala nekk ak goro wala gàddu sa leget wala sa pañe marché xëy nduggi xel xalaatu ko jubal ca waañ wa dem togg waaw parce que influence bi nekk ci ñoom la parce que bu jigéen demee ba toog ak jëkkëram ne ko man de diw comme jëkk ju mel ni diw laa am mhm. laa bëgg te mhm. fekk yow yaa ngi ci sëy ba yor sa juróomi doom waaw ba R4 bu toj di ci am waaw sëy bu tas di si am si loo xamante ni dafa waroon yeete ndax bu njëkkoon suñu maam yi dañ daan yeete mm. da daan gis euh, ñu mel ni daaray Kocc bu ñuy tourné ay kii yoo xamante ni mm-hmm. dañuy di jël ñu dem ba ay village mm-hmm. ne woon naa la fi damaa da nam nam liitiyee ak xàll leen yoonu daara jëde way yooyu mu ngi noonu mm-hmm. dañuy jël théâtre bi dañ koy tas ba ku nekk na si gis boppam dëgg la ndax am na koo xamante ne ni Sénégal mu ngi Sénégal fii bu gisee mburu bala ma koy gisati yàllaa xam dëgg la léegi yow bu fekkente ne chaque jour danga koy wan ci télé bi croissant table bu ñu dressé ba mu baax ba mu fees dell mais moom dina ni lan mooy lii sax parce que am na ko xamante ni Sénégal bu xëyee lekkitu fondem lay teg naan mhm. mu ngi fii biir Sénégal dëgg la léegi lan moo waral tax man mënuñu ko varier bu ñu wanee richesse wane pauvreté ñu xamante ne ñaar yëpp la parce que mais léegi léegi même télévision itam boo fa yóbboo théâtre yoo xamante ne ay ay baraak laak ay kii ak yooyu duñ ko jël parce que luxe bi ñuy jaay la. luxe bi ñuy jaay la sponsoring bi table jooju ñuy dressé. il faut mu am beurre bi. Ah. il faut mu am chocolat bi. Ah. il faut mu am meew bi. yooyu yëpp nekk ay sponsor yoo xamante ni. xam nga dama dégg Ibrahima Mbaye Sopé wax foofu la am solo. voilà mu ne léegi théâtre théâtre tuñu li ñuy li ñuy produit bi ñuy jaay moom moo ñuy conditionné. Hmm. parce que bu fekkee ne produit bi daf ñuy conditionné. merci beaucoup hmm. bu produit bi ñuy conditionné beurre bi faaw mu génn te faaw nga teg ko stable. te bu njëkk ba daf daan yem ci euh, xëy na du sun du du thème bi sax. mais bu njëkk ba daf daan yem ci. billboard début billboard fin. nga am spot ci au milieu. mais léegi nag da koy imposer kii théâtre mu wax la ne la allo. man de sama opérateur sàngam moom laa jëfandikoo crédit bi ma may tey jii. xam nga li ma la wax. Ah. def ko ci biir théâtre bi léegi loolu lan lan lay jàngal. nit yi boobaa. da ngay jaay produit. voilà théâtre hmm. produit ngay jaay. ngay jaay. mu ngi noonu. Hmm. xam naa bés du ñàkk dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw incha allahu taala mais bu ñu ñëwaatee si crise des valeurs yi nga xamante ne jamono ji fi la ñu hmm. ñu nekk si fête ji comme ni nga koy waxee. parce que xale bu jigéen. man waxuma góor jëlale naa ko. mais xale bu jigéen bu demee ba xool koo xamante ne mën na laa jur. ngay wax ak moom yenn wax yoo xamante ne tegginewul yooyu man danga naa. comme li ma la yónnee waaw ban réew la ñu nekk. Mm-hmm. loolu rus naa ko wan sax imaam. waaw loolu moom ëpp naa wan imaam. jii sama xel xalaatu ko. amee dégg mais danga naa yow ban réew la ñu nekk parce que léegi bu njëkkoon nit ñi. te dafa fekk mu nekk altine ñu nekk ci thème boobu. waaw mm-hmm. mu seetaan ko jël sama numéro ci télé bi. waaw mm-hmm. altine ba ci guddi. 24 décembre la. xam nga yéen ñaa ngi toog di seetaan télé nangam sangam. yéen ñi siiw dama leen a yërëm ndax seen numéro yi yéen ñëpp dañ koy am <laughs> moo tax nag gis nga des fois dañuy blâmer waaw waaw yéen kenn mënu leen woo jot leen kenn mënu leen envoyé message ngeen répondre wala kenn mënul am seen numéro mais man sama numéro moom sama numéro moom ñëpp am nañ ko mais pour WhatsApp léegi man ma yónnee la ci audio sama baat bul sax sonn bu dul ku ma xam bul sonn loolu dama koy wax au effort parce que imam sama benn xale bu jigéen moo ma woo mhm. le quatre ci bëccëg. Mhm. ne ma ni muy waxee ah. Mhm. allo tata na def ça va yaa ngi si jàmm dama bëggoon ñu waxtaan. Mhm. man ci sama tooñ. ak xale yi na problème wala ma ne ko allo nen ne tuuti soo bëggee ñu waxtaan woo ma appel normal. yow yaa neex rek doom noonu ngay waxee. ma bàyyi. guddi jot mu yónnee ma beneen message. ne ma tu la chérie écrite. ma bindal ko ne ko c'est mu ne ma ñoo doon discuter léegi. ma ne ko ah bon. ma ne xool say discussion. mu yónnee ma sama ojo may lox ma ne ndax kii it sama baat bi du ci def leneen. ba dugal ma parce que ñi siiw moom. fi mu nekk te nag bala ngaa miim bay. Ah? ba bañ naan deñ na. fi mi setul mi àggul mënoo fa na yàqu na dëgg la. ñu bàyyi. mu ne ma ndax doo ma yónnee sama vid sa vidéo wala sa photo. Mhm. ma ne ko man aw ma vidéo. aw ma it photo mu ne ma ma yónnee la sama bos ma ne ko waaw télévision laa nekk il faut ma xam vidéo yëpp ma yónnee barke Seydina Mouhamed sama rangoñ da doon tuuru du agressé du rey nit de. mais ñaaw gi mu ñaaw ak jëf ju ñaaw dañ cay def à son que ku mën a xool kilifa toog ci télévision. vraiment bëgg lu la neex tax mu yëkkati numéro am jox leen ko. pour di leen déglu. nga di ko yónnee yu mel noonu. kooku yàqu na. benn. imaam mhm. may ma tuuti ma yeggale parce que mhm. dama ne woon tey jii ma ñëwee du ma wax dama leen di rek bàyyi leen yéen ngeen doxal parce que du ko mën. Mhm. bismillah. bi neex na la. ma ne ko arrêté mu yónnee waat beneen ma audio ko. ne ko nee na tuuti. détrompe-toi. fi nga jëm du fii man pour man fan sa la mhm. bu may envoyé audio may waxtaan ak moom mais su ma xamoon ni fii lay teere mhm. du ma ko def te man sa ndey laa mhm. du ma sa morom ginnaaw gi ma ma yaakaar ne ku góor dafa laxatu ci biir ma jël beneen numéro ma woo ko téléphone même xale bi wuyu ma moom la kon moom la yaay joo xamante ne nag sa doom numéro téléphone am soixante-dix la 62 01. xamal ne sa doom. yàqu na jeex na tàkk. parce que loolu mu ma yónnee. nit mënul dund loolu yor ko ci portable am. ba pare nga bëgg a wëlbatiku ne kii xale bu sangewu la. te découvrir ko quoi mënta nekk. 70 819. non moom xamul yaay ji. 62 01. dañ ma doon wax naa man boo boo joxee numéro bi joxeel genn wàll man leen déedéet. Mhm. parce que ñi ko xam ñëpp. am numéro bi ñëpp. nañu xam ne xale bi xaaju guddi ci lii lay dox. ñu teel cee taxaw. am nga li nga wax ni li muy findeel dinaa joxewaat numéro bi. li nga wax ni li muy findeel hmm. imaam keroog maa ngi koy wax ne ko. waajur yi sax léeg-léeg ñu def li ñu mën. ba tëdd jot. ñoom ñëpp ñu tëdd. Hmm. la nga doon wax keroog lay dëgg doom génnul tëdd. Hmm. papa ji lu muy wax sama doom a ngi ci biir. doxi jiwul baaliwul yaay ji lu muy wax sama doom a ngi ci biir léegi te la muy def sa biir si biir mbàjj mi moo gën a garaaw fukki junni yoon génnoon dem baal. génn ci mbedd mi fukki junni yoon parce que imagine toi xale bu ndaw boo xamante ne 16 ans 17 ans nga am sañ-sañu simmeeku yow. photo ak énergie waxatuma laa nag bu fekkonte ne yow da nga génn. donc mu mel ni foofu tamit wa ni'mal wakiil imam Ba. Mm-hmm. Mm-hmm. abu zaman la am yenn sañ-sañ yi yenn mm-hmm. fiti te nañu def très attention gis nga ñi siiw. am na ñoo xamante ne dañuy nekk ci ginnaaw di di leen defloo nag su dul noonu. pour jot leen. pour jot leen mais moom ci wàllu boppam dama ko wax ne ko. sama ndey ji Tigala jaalo moom Jalle waane ma tabara Yaasin borom ma neex. Mhm. li mu liggéey ci sama kër baay. Mhm. ëpp nañu di ma piège di ma jàpp man. Mhm. barke Seydina Mohamed. xam nga ku lay yóotu jot la lu mu jot koy sànni. yaay ju jàpp ci sa loxo. di dox di jaabante di dem di ñëw te lépp li ko waral lu dul suturaal baay. nga bëgg a uññi sutura doomam. sa sutura ci boppam mooy uññeeku waaye du uññeeku mukk amu man lu ma ci ragal ne nit a nekk ci ginnaawam wala dara. mais daal jikko yi moom. xamatoo sa ndey xamatoo sa baay xamatoo kilifa diine xamatoo kilifa aada xamatoo lenn yow daal li la neex rek nga def ci nag li ma ci metti mooy amoo vingt cinq ans mais yimpaañ xam nga lu tax loolu mu ni sax man dama ñu nekk ci gannaaw moom mu bon bonu boppam dama ne dafay dal léeg ñu ñi ñi ñi siiw ñu leen tendre piège. parce que tey bu ma ko yónnee woon sama video wala sama foto ah. am na ku mu ko koy yónnee mu monteel ko ko. non à ñu jël sama kanam te ca ko loola. Mhm. xam nga li ma la wax. ko ki koy montel nekkul ci ginnaaw. moo indi chantage bi loolu moom da lay yàq à vie. xam nga xale. Mhm. sa ndey moo liggéey loolu waaye man sama ndey liggéeyul loolu. mukk li may wax foofu rek. Mhm. mooy nit li mu def. moo koy wàññi. Mhm. mais liñ la tuumaal ak liñ lay fexeel. mën na laa bañ a wàññi. imaam waat ci réew mi dafa jafe de. waaw ba tey déedéet jarul waat xam nga lu tax jarul waat. Eh, yonent bi ba léegi tuumaa ngi ko topp te dañagul. Mm-hmm. waaye yow imam <laughs> sama ñetti ah? dërëm yi may am ci waxtaanu tele bii nit ñi di yëkkati seen alal di ma may sama patron di ma fay ab salaire nit ñi di yëkkati seeni morso di ma may may solo suñ ma tuumaalee ba am na loo xamante ni buñ ko wanee ci sama image dootuma toog fii di yeete déedéet loolu liggéeyu ndey la waaye léegi nag balaa loolaa set sama ñetti dërëm yooyu ma doon am ah. fu ma jëm dara yàlla yàlla jeexul parce que xam nga lu tax gis nga sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh dafay wax ne tuuma alalu gor la. Mhm. waaw kàccoor moomu ko. nattu alalu jullit la. Mhm. yéeféer moomu ko. dëgg la koo dégg ñu tuumaal ko rek gor la. Mhm. dafa set wicc ay noonam bëgg koo tilimal. waaye li nga wax rek gis nga boo xëyee ñaanal. boo xëyee saraxeel. muslul ci yàlla. di dajeek ñu mel nii parce que boo demee ci ñaanu mag ñi. dañuy muslu ci ki lay fexeel. te yëguloo ko. ñun saa bu ñu wadifa ba pare ci jàkka ji daañu jàng fa najjina ya xaliqa sheytaan mm. mais ci biir fa najjina dangay ngay jàng wa kay di kulli kaidin mm. yàlla nga ma musal ci pexeem képp ku may fexeel mm-hmm. ku góor wa kaida ak ku may fexeel ku jigéen bon soo demee ci benn ñaan boo xam ne Cheikh Sidi Hajj si def na ko nauzu billahi min charri kuffari wa min charri nasara wa min charri salatini mm. lu ne la muslu pour wan la ne Euh, suñ borom subhaanahu wa taala mm. su la mayee daraja may la lu toll noonu ci ay noon sëriñ Mansour borom daraja daan wax ne li ma yàlla defal mm-hmm. lay muñee li ñu may def mm-hmm. <laughs> waaw waaw li la yàlla mu ne li ma yàlla defal lay muñee li ñu may def am solo tey boo xoolee borom réew mi am na waaju ko fi doon saaga saaga yu metti mu am mm-hmm. dal tontuwul waaw waxuma ngir politique parce que man doon politique dëgg la yaa ngi dégg mu am dal tontuwul mu jël euh, président assemblée di ko saaga lu ne mu wax ko mu am dal tontuwul mhm. gis nga ku fi baax yaa ngi dégg gaa yi nga la songu ci suuf nga yëg ko ak nga bañ ko yëg mhm. li fi nekk nag mooy li nga wax rek sa yu ndey ak itam suñ borom subhanahu wa taala bu la bëggee bu la bëggee musal wallahi amul kenn koo xamante ni mën na am benn accès ci yow dëgg la alors man euh, côté boobu mhm. euh, wax dëgg yàlla Euh, dama koy dama koy yeddee kilifa mhm. parce que xale bu ndaw nga jëndal ko portable jox ko te xam ne portable àdduna la mais adduna boo xam ne àdduna mbedd mi la. Hmm. waaw parce que suñ borom daf ne xaramal naa ci yéen. Hmm. yu ñaaw yëpp ma hmm. zahara minha wa ma batan euh, dañ ne wa ma batana bokk na ci portable bi nga xamante ni sa doom a ngi ko yor. te xamuloo ci yenn suite lay dugg mhm. kon yow kilifa gi nga xam ne yaa ko jox portable boobu yaa ko njëkk a yàq te am na ñoo xam ne tey xamuñu li leen responsabilité bi leen yàlla jox mhm. te mooy njaboot gi bu dee jigéen da ko war a yar ba mu am jëkkër su dee góor la da ko war a yar ba am 18 ans mhm. yaa ngi dégg léegi nag bu fekkee xale boobu tey tëdd na ba guddi yor portable di ci def lu ko neex. billaahi ba am fitu. tabaarakallaahu mm-hmm. fekk émission boo xam ne day yeete. billaahi dafa nekk day yar. Mm-hmm. nga bëgg jooy naa de. nga bëgg mm-hmm. maanaam wan ku njubadi goo xamante ni wax dëgg yàlla dana ci ànd ak yow. su fekkonte ne maanaam tey. Mm. maanaam comme ni nga ko waxee xëy na ñàkkul ne am na lu nekk ci ginnaaw. te jar na fook nag. Mm. waaw jar na foog mën na am lu nekk ci ginnaaw parce que xale bu toll noonu. waaw wax dëgg yàlla. pour mu mën a am fit woowu di ko def. dana ma jaaxal kon yàqu na ba yàqu yaxet. imaam yàqu yaxet. <laughs> xam nga portable bi muy wax sax. waajur yi mën nañ ko bañ a jëndal xale yi. Mhm. ndax xale yi léegi coupable nañu capable nañu. te ay criminel lañu. sans danger. Mhm. wala avec danger. <laughs> avec danger am na bu si am mais imaam bu fekk ne da ngay jàng ji di wàcc. waaw nga yor. comme góor ñi ni ñuy faral di amee ñaari téléphone téléphone oto mhm. ak téléphone ba sa kër ga bi famille bi yëpp xam waaw am na góor ñoo xam ne seen i mhm. yoo xamante ne du wàcc oto bi mhm. du a wàcc oto bi ak ak yi dul génn ma ñëw noppi na bu mës ta wàcc oto bi boobu moom pis boobu moom la ñoom day pettaaw ak ñoom aw baak ñoom ñëpp moom la ñu yor moom la ñuy wootee toute la journée bu ñu xasee ba arrivé à la maison fay nañ téléphone mu ngi si biir oto bi du mës a wàcc oto bi xam nga kooku bu fekkante ne dafa dajeek xale boo xamante ne moom itam am na ko téléphone bu mu ko jox. boo xamante ne bokk la ba ko waajuram jox. Mm. téléphone boobu guddi ba guddi la ko xale bi taal. nit dina nekk ak doomam si benn kër. mu am téléphone te du ko yëg. du ko mës a yëg. dëgg la parce que xale yi seen technique moo graaw. te te te te te waaye waaye fu mu ne nii man pour ni ma gis mooy. waaw gis nga yar bu dëgëree. xale bi mooy njëkk a bañ lu bon. dëgg la. même ku ko ci woo itam day bañ. imaam waaw way jur yi yar nañu. ba de déggoo proverbe yar yoo xam ne proverbe olof bi wax naan wuy dana jur xatax. déggoo proverbe wolof bi naan wuy dana jur xatax. waaw buy. buy wuy. wuy wuy ah, la wax sax mm, ci buy lay nekk. waaw mm. ci buy lay nekk mais wuy dana jur xatax ñu bari mm. buy dana jur xatax la ñuy wax. Mm-hmm. mais man sama olof yi dama ko kii <laughs> dama damay gëstu ci olof. Mm-hmm. mais mm-hmm. euh, da xool. nañu ma baal. waaw Serigne Moukabaro. Mm-hmm. moomu jur doomam liggéey ci lislaam lu am solo di defar ay nit. Mm-hmm. yar doomam. doomam mooy ki taaloon boroom këram maris. Mm-hmm. kooku yarul doomam. ba yaraale ay jàmbur. Mm. du dëgg sëriñ si yaratuñ seen doom di ngam di ngam imam <laughs> maa ngi ci biir sëriñ imam di ngam mel noo jigéen ñi ñooy yar moo tax ma ni la wuy dana jur xatax mm-hmm. bismillah nekk fu baax mm-hmm. ak bokk fu baax taxul nga ne ki nga jur mm-hmm. ku baax lay war a doon waaw loolu dëgg la xale bii ma doon yónnee yu mel noonu li ma leer ba leer ma mooy xam nga jour boobu baaliwul mi ngi ci kaw lalam tëdd ndeyam nee na ko doo baali parce que ma ngay veillé ci éducation am. Hmm. na ko doo génn ci mbedd mi heure bi parce que ma ngay veillé ci éducation mais damay def a gën a garaaw def moo gën a garaaw kon ndey ja yar na. Hmm. téye na ko ci biir kër gi moog baaye waaye nag moom foraatu na jikkoom ju bon ba ñëw di ko di ko di ko di ko jéem a jëme ki soxna Mbaye. Hmm. loolu dëgg la. nit ñaa ngi message numéro xale bi lan la 70. 819 62 01 mooy numéro. xam nga tey fay numéro bi. non. jubluwuma ci pour mu taal ko de ndax xam naa ne pare na ci. Mm-hmm. mais ñi am numéro boobu. Mm-hmm. nañu xam ne xale bi ci li muy dox. Oh, mm-hmm. bu ñu toog xalaatal ko mu ko war a gor war koo jébbale. <laughs> yàlla li ma yónnee. ah man yàlla mën na lu ne de. ndax l'apparence est trompeuse. waaye daal. comme xale tey na xel. waaw comme xale la. waaw te ci ñun la bokk ci société bi la. seytaane ko mën rek ba yóbbu ko ci wàllu googu yàlla na ko yàlla gindi. amiin. yal na ko yàlla gindi a amiin jaay seen wujud gindi ku mel ni moom itam amiin amiin dëgg yàlla parce que itam euh, doomu aadama bu juddu rek ci njub nga juddoo mm-hmm. mais nag sa société milieu bi ngay dund moom moo lay moo lay def bon boo gisee tey suñu classe gii di ñu ne gars yi mën nañu woote ci 88 628 14 13. numéro bi kaddu askan wi am na ah, dinañ ci ñëw léegi léegi incha allah. Mm-hmm. waxal Roqe mu kaleel la ko. waaw Roqe mën nga kale éléments yi kaddu askan wi bu defee ñoom itam wax ci seen mm-hmm. xalaat. li di dem ci kaso yi. di mm-hmm. waxtaan ak nit ñi. Eh, ñu bari dañ naan ma bon yow war nañ la jox sa émission bopp parce que vraiment nangam ak nangam façon bi ngay waxee. xam-xam bi ngay waxee ak ni ñu la xamee. bon ki mission kër gi daal ñun gisuñu la foofu ma ne leen nag man gis naa fa ah, sama bopp ah ma la bàyyil fii nag waaw ma ne leen gis naa fa sama bopp. kese c'est l'essentiel euh, dafa dafa jot. Mm-hmm. dafa jot euh, maanaam ñuy dem ci yenn plateau yi. Mm-hmm. pour mën a am ñenn ñi. dëgg la. parce que boo dee toog fenn fi rek mën nañ la fa bañ a fekk. sa fekkee imam bi ci jàkka ji rek lay toog di xutba. dana am kum dul waar ba ba muy dee. dëgg la ndax am na ku dul ñëw ci jàkka ji. dëgg la kon ilimaan fépp la war a dem. Mhm. fépp la a dem. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi bëgg a wutal nitu diine place. Mhm. xamuloo diine dégguloo. di waaw yonent bi fépp la daan dem. dëgg la waaw mali rasul eh, yaakulu taam wa yamshi fil aswaq Euh, araab yi dañ ko daan wax pourquoi mm. yonent bu toll nii mm. di dox ci mbedd yi mm. <laughs> yaa ngi dégg di dem ci marché yi ah mm-hmm. yàlla ne ko nag nit nga mm-hmm. nit nga mm-hmm. man yónniwu ma malaaka dëgg la yónniwu ma jinne nit laa yónni ci biir nit ñi kon nag li nit ñi di def danga koy defandook ñoom ba pare di leen wax sama njub di joxe sama message euh, Adja suñ société bi xale yi ñooy ndonoli bu ñu amee société bu bon. Mm. bu ëllëgee sa doom du mucc sama bo sama doom du. du mucc wallahi wallahi parce que léegi. Mm. Euh, ma maanaam euh, jikko day royaat. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw parce que euh, sa doom da koy tànnal àndandoo. Mm-hmm. ñu muy àndal parce que ñu bari dañu foog na yar muy dóor. yar muy yuuxu. dañ ne yar ëpp na liñ ko tuddee gis nga yar bi ngay dumaa xale bi. ëpp na liñ ko tuddee. dëgg la yar balaa dal ci kaw gone. war nga jaar fu ne. Mm-hmm. muy soog a dal. Mm-hmm. kon yar mu ngi commencé ci dialogue bi ngay def ak sa doom. miina waaw waaw c'est ça miinal ko sa bopp. ngeen sa sa sa njaboot miin la bañ la ragal. Mm-hmm. xale boo gis mu ragal ay mag ku jubadi la. mais xale boo gis mu ñemee fréquenté mag rek. kooku moo a amee chance. la. kooku moo naan déggoon naa sama baay wax naa nga déggoon naa sama yaay. wallaahi mu jam ay jomb jomb. c'est ça macha allah te eh, wax dëgg yàlla. Eh, xale bu tool noonu. jaroon na yow nga def yitte yaa ngi dégg su ma doon su ma doon yow xam na xaw naa teel a waxtu imaam sama jooy <laughs> xaw naa teel a waxtu julli fajar gi def ba xami kilifaam julli fajar gi daañ ko wax ak moom tisbaar gi mhm. takkusaan gi mhm. lépp su ma ne allahu akbar mhm. sama xel ñëw ci xale bi ma bàyyiwaat. tabaarkalla xam nga yooyu àq sax dèjà. xajul ci bopp gone. moo tax gis nga mas na ma dal bi may soog a fii benn xale boo xam te ni daf ma doon envoyé ay message di ma saaga. di ma woo téléphone di ma saaga. kooku dem na ba ñëw ba sunu biir kër. sunu salon ñu toog. waxtaan ba def yëpp ba pare. bi mu génnee ba ma gungee ko ba mu yéeg scooter bi doon dem booba maa ngi dëkk Tëngéej. c'est laa wax sunu waa man leen xale bi ma doon saaga moom moo moo moo toogoon ni. xale yi ne pëccit ne dañ koy dabi. biñ man leen toog leen dem na bu yàgg donc euh, des fois kii mën na am jot googu. Mm-hmm. mais man amatuma jot boobu imam mm-hmm. <laughs> amatuma jot boobu. Uh-huh. yaay ji daal na jéem a xoolaat doomam nit ñi nañu xoolaat seeni doom. Mm-hmm. bu baax a baax a baax a baax ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee. Euh, xam naa ñu xaarandi gars yi ci ligne bi waaye a loolu. kàddu askan wi ñu ñëw ko. ak itam lan moom motiver nit ñi ba tax xale yi di mel noonu. portable wax ngeen ko ci la bokk. wax nañu théâtre bi ci la bokk. mais am na yeneen i influence yoo xamante ni itam mu ngi ci biti itam. ci la bokk lobby lobby lobi waaw luy lobi doom lobi nañ dem kàddu askane bu ñu ñëwee ma tojal la lobi yi <laughs> roxaye image <laughs> tonton dañuy waxtaane ba léegi ci crise des valeurs yow en tant que mag lan nga ñu mën a wax ci loolu c'est l'éducation de base qui manque dañuy copier trop trop sur les occidentaux maanaam bu njëkk xale daawul wax mag waxoo dëgg xale daawul fenloo mag donc éducation de base bi moo manqué. xam nga di koy yàq bañ a doylu góor a moo amatut alal tax na nit rey nit alal tax na nit wax nit lu nga ko warta wax alal tax nit def nit lu nga ko warta def soo loo gis ci na fi nga koy baax dara du bu nekk da nga doon doon baale ko sax jaru ko askan loo xam ne da ngay dee wàcc ko fi dara du la topp. kenn yaratu surtout Sénégal yi nekk nii. yaru pour nga gis ko ku fi yaru boo génnee da nga koy compter. xale yu jigéen yi yarootuñ xale yu góor yi yarootuñ surtout nag ñi mujjee judd ñi bu ñu mujjee judd ñii nouvelle génération bi kenn yaruwu ci. parce qu'on consomme mal et les enfants les garçons maintenant ils veulent pas travailler ils veulent pas cultiver moi moi je suis cultivateur. Et je cultive bien, je mange bien, il y a tout et tout, je mange la nature et je mange ce qui est, ce qui est frais. Et maintenant, les gens ne mangent pas ça, on mange ce qui est pourri, surtout les enfants. C'est pour cela qu'ils se grandissent vite. C'est des élevages comme des poulets. voilà euh, Ndeye defe naa ni reportage boobu yaa ko def ji woon sa commentaire. waaw waa ji li am na solo de. waaw am na solo. Euh, boo bayee rek lekk li la neex. lekk lu wóor. te xale yi nangootuñu bayi. déedéet. de mhm. nga ku ñaan ñàkk boo jëndee am. waaw bu fekkente ne yow dañu lay indil forfos. Mhm. da ngay consommer forfos. li ñu lay indil rek ngay jël. loo gis jël. Mm. loo jur dalay neex. Mm-hmm. ndax jamono ji ñu nekk nii xam nga maa ngi lay wax sànq ne lobby yi. Mm-hmm. dafa am ay lobby yoo xamante ne nii dafa lëmbe réew mi jamono ji. waaw mooy waral tax yar bi suñuy waajur defoon si ñun yu bëri day deñ ndànk-ndànk. Mm-hmm. gis nga nit waajur dina nekk ak doomam si kër. xale bi yor double visage. bu nekkee si kanam papaam ak yaayam imaam kenn du ko gën mais bu génnee film réew. <laughs> ndeysaan. léegi nag kooku nan la waajuram di xamee ne kii mu ngi si li ko neex. du yomb ko musa xalaat. Mhm. tey fi tey bu xëyoon tey ñu ne ko sa doom nangam ak nangam mën na si amee mbetteel. comme tey xale bi technique. Mhm. Mhm. fekk yor na numéro bii. waaw xam nga mën a yor tamit. fekk yor numéro bii mën na si xamante ne choc lay doon. numéro bu muy wuyoo la mu ngi noonu à chaque fois nga gis nit koo xamante ne nii. dafay def toj-toj boo xamante ne nii. ay mbokkam yi nekk si gannaaw ñoom ñooy gën a sonn ko sax moom. parce que yar bi bu fekkee na nga yor sa doom di ko yar. ci siraatal mustaqim teg ko ci yoon mu génn école bi jël wàllam mbedd bi jël wàllam. Mhm. copinage yi jël wàllam. lobby bi ngay wax lobby lobby boobu. mooy lobby copinage yi. waaw parce que bu fekkante ne xale bu jigéen bu demee ba gis moroomu jigéenam ne ko dama la nopp. Mhm. ci lobby lesbienne bi la bokk. Mhm, ak giwén yi. xale bu góor bu demee ba gis moroomu góoram. topp ko mu jaral ko lu nekk. ci lobby góor jigéen ñi la bokk. donc lobby yooyu nga xamante ne léegi dafa dugg si biir Sénégal carrément pàcc boo xalaat nag boo fa duggee actuellement mu ngi fa. et puis ñoom ñu ngi mën seen combat. lentement et sûrement. ñu ngi mën seen combat bu baax ne seen but dinañ ko atteindre. yaa bañ ko atteindre yàgg. kon ñoom imaam am nañu soxla ñoom it war nañu mën seen combat. Mhm. bokk na ci nag émission kër gi mu dugg ci di ci wax lu mel nii pour nit ñi mën ko dégg. ci combat bi la bokk jërëjëf imaam mhm. mooy. Mhm. lobby yooyu ma lay wax. waaw pàcc moo xalaat si réew mu ngi fa. déggoo ma de amul côté bii côté bii de pàcc yëpp la laal. foo fëgg ma nga fa. foo fëgg kër goo fëgg mu ngi fa ni ñu koy waxee groupe boo fëgg wala mbooloo fu muy daje mu nga fa. yàlla nañu yàlla man mës nañ si def benn émission boo xamante ne waa bi mu defee ay révélation si ñu nekk ay góor jigéen actuellement si réew bi yow da ngay jàpp sa gémmiñ ndax doon ko fooge lu lay bett lay doon donc lobby yooyu moom fi mu toll moo lëmbee réew moo waral tax xale yi tuuti da ngay gis xale te léegi góor jigéen du habillement bi ci kër ci kër ci mm, mm, mm, mooy ànd ak sa moroomu góor dépassé nañ góor jigéen kay sikkim bi mën naa gudd ba yegg si fii sax te góor jigéen lay nekk dégg nga lii xam nga mag la naa lobby bu nekk mu ngi fa kon ah. imaam xam na li may wax allahu akbar mm-hmm. jigéen tamit léeg-léeg nga gis jigéen boo xam ne tabaarkàlla macha allah ñu naa kii nanga ak nangam ak nangam ak nangam na booba lesbienne la wala géwél la mm-hmm. lobby yi léegi lay nopp kese moom jaral na ko lu ne te li ma ci jaaxal mooy yor nañu kii de weccit amee ah, mais loolu léeg nga gis ay groupe yoo xamante ne nii du ma man mënuma tudd sax exact groupe yi parce que xam nga rek réew mi ko wax lépp da ngay nekk eh, léegi doo ko fi waxee sax doom man ndax man man ñemew ma mu ngi noonu léegi bu ko defee nga gis ñooñu mm-hmm. ñu nekk ci leen neex te mm-hmm. nekkuñu ci si buumu sëy mm-hmm. ay xale yu ndaw la ñuy jël leen entraîné léegi xale yooyu yar bi seen waajur yi defoon ci ñoom ñooñu dañ koy dindi imam bu baax que yow dañuy jënd oto jox la wala ñu jënd scooter jox la yow santuñu la dala demal saal lekkal naanal utal appartement bu baax mm-hmm. sa yaay foog ne yaa ngi liggéey wala yar bu mu defoon si yow fekk na booba ko bu yàgg donc mu mm-hmm. nekk ay ñaawteef yoo xamante ne ay valeur yoo xamante ne amoon nañ ko mën a léegi mënatuñ koo gisati fenn fenn fenn parce que léegi pour xale bu jigéen sax wala xale bu góor bu dem ba yenn âge yi dëkk ak famille non famille léegi sama indépendance léegi dañuy dund comme te ñëpp riche léegi man daal man daal richesse bi ci dëkk bi jaaxal na ma daal imam waaw embouteillage bi li ko waral ku nekk yor oto. waaw xam nga. xam nga oto de ay jël xam nga ah, maa ngi jël puusal ma xam nga maanaam li li li li li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi na diine. Mm. borom xam-xam yi. Mm. yi nga xam ne dañu maanaam di daganal lu leen neex. ci mm-hmm. diine ji. Mm-hmm. ak euh, buur yi. Mm-hmm. ñaare ñooy yàq diine. te diine bu yàqu rek ji ko yàqu. xaw ma dégg ngeen moo la déet. dëgg la ah, diine bu yàqu rek. jikko yàqu jikko yàqu na dëgg la. Euh, léegi boo xoolee tey bi maam Abdou dee dund. Mm. Euh, am na ñoo xam ne ñeme woon a yëngu lobby yooyu ngay tudd. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ñu ci bari ñeme woon a yëngu. Mm-hmm. ndax fayda ji nekkoon ci góor gi. Mm-hmm. ak ni mu doon défendre diine. ak ni mu doon sàmmee réew mi. ba ci musiba bu nar a wàcc. mu woote joxe ay dog santaane ay sarax. Euh, ñooñu nga xamante ni tey ñoo fi nekkoon. di sàmm réew mi ci ay kilifa. dañu ñàkk ñu bari. at yi ñu génn. dëgg la dëgg la wallaay dëgg moo tax fu mu ne nii ñoom kat gisuñu lu ñu xam moo tax ñu daw làq. c'est ça léegi moo tax ñu ñeme Sénégal fu mu ne nii. Mhm. lobby yooyu ngay wax dañoo ñeme Sénégal fu mu ne nii parce que euh, ñu ñu fi fekk léegi. ñu waroon a doon mag ñi ñu ci bari combat boobu intéressé wu leen. Mhm. yow boo ci dee wax sax dañ lay naan moytul dañ lay rey. dëgg la. Euh, ñu jël ku mel ni Sidi Lamine. Mhm. des fois daan na dugg ci yenn sujet yoo xam ne. Mhm. da nga naan kii de euh, ñeme na lool. Mhm. te yàlla rek moo ko taxoon di wax. alors ñu mel noonu nga xam ne dañuy cultiver. bañ a nekk sëriñu daara rek. bu ñu ko leen commencé ñàkk rek. jik ñii lobby yooyu. dañuy dañuy dañuy am doole ci réew mi. Euh, ba tax na man li may conseiller nit ñi mooy. di ko conseiller sans bopp. mooy sa njaboot da ngay njëkkanteek moom jamono. Mm-hmm. Euh, doo yem rek ci maanaam euh, jox ko mu lekk ba suur. Mm-hmm. mu dem jàngi wax ak moom ne doon rek bàyyi. Mm-hmm. mais day ko surveiller. jël sa ba di ko surveiller. di xool ñi muy àndal. di xool waxtu ya muy wàcc. Mm. léeg-léeg nga bett ko école am. parce que daf la koy jaral. mbir la moo xam ne yàlla daf ko teg ci sa loxo. te xale bi bu baaxee rek nga baax. mais est-ce que waa ji itam amati nañ jot boobu oustaz. di di bett jot gi xam nga ni jot gi foog ñu xajal ko ci. jot boo nit ku la ne sa jot yow. Mm-hmm. Mm-hmm. mais am na ñu mu am jotam. Mm-hmm. man jàpp naa ne bi gën a mag. ci ci waajur mooy mu am jotu doomam. très bien. ngi dégg. kon nag su fekkee yow nee nga sa jotu doom. est-ce que xam nga ne na waajur yoo xamante ne seen doom dinañ jàng. cycle ba ba pare. te du ñu xam seen buntu école fan la. Mhm. am na da koy gis. da ngay gis ay waajur yoo xamante ne seen doom dina jàng ba pare. ñu mhm. xam mu musuñu dem seen seen seen école doom. parce que amuñu sax jot bi. Mhm. ñoom pour ñoom doom xontal la yaruñu de dañuy xont. waaw te xam nga waa kilifa dafa am. waajur am. kilifa dafa am waajur am. waajur mooy ki nga xam dafa jur rek. di xont. lu doom ji bëgg bëgg na lu doom ji bañ bañ na. mais kilifa nag mooy kiy topp doomam pas a pas. bu matee jàll alxuraan mu yóbbu ko mu dal alxuraan bu matee jàngi école mu yóbbu ko mu jàngi bu matee def leneen mu yóbbu ko mu def ko di ko suivre pas à pas nga xam ne mhm. dara du ko échappé mhm. Mhm. si si si yaru doomam mais bu fekkente ne waajur rek nga da nga sukk jur après sànni si bi moo bàyyi ma si mbedd bi ñooy yem jigéen ñi ñooy dimbali góor ñi gis nga gis nga euh, suñu bàyyi Ibou Sakho waaw yàlla yàlla yokk da daan wax ne moom lu mu am ci diine yaayam la koy gërëme mais du ko gërëme bàyyi mu nekk parce que papaam dafa ragaloon ay nijaayam ba taxoon mu bañ ko bàyyi ci daara ji mu génnee ko ci daara ji pour jàngal ko métier mais yaay ji moo ne jàkk Ibou Sakho xam ni kii ci daara lay defaroon xam nga jigéen ñi itam am na ci ñoo xam ne yàlla may na leen baatin mu ne ko sa baay day sañuta wax ma ciy teg baat wante waxal sa baay ne ko da nga bëgg a jàng mm-hmm. bëgguloo métier keroog ba muy firi alxuraan ba ñu may ko kër jox ko mm. caabi oto eh, maanaam jox ko paasu màkk daf nay tey day duma gërëm sama baay mais sama ndey laay gërëm ndax teraanga bii bu ma ko amee moom la moom moo tax eh, gis nga xale yi dofuñu est-ce que gis nga technique de communication bi yaayam jaarale c'est ça loolu mooy yar beeg teggin bi li ngay njëkk maanaam xale eh, yar du dóor hmm. même ci say acte ak ci say doxalin ci kër gi dafay yar gis nga bu doon man la tey ji daka naan sa papa di njàng métier njàng métier dafa teel ci yow métier ci boppam doo ko jàng ca daara ji nga jëm c'est ça mais xoolal ni mu ko ne neel sa papa da ngaa bëgg a jàng te bu ma ci feeñ la ko wax bu ma feeñ parce que sa baay bu waxee sa ñu ma cee teg baat mhm. xoolal yooyu <laughs> valeur waaw waaw quelle valeur ah, c'est ça non non problème yi problème yi fa mu dépare mhm. macha allah dafa bari dafa yàqu euh, gang yi bari na mhm. euh, ñi ci mbedd mi te léegi imaam bokk na ci li nga xamante ni itam day tasaare loolu. Mhm. kenn ñi meetu la yar sa doomi morom. déedéet. parce kenn ku ci nekk am nga looy ragal wala kenn ku ci nekk mhm. xam nga fa nga bëgg a yem. Mhm. sama doom day génn def toj penc. la olof Njaay di wax ne saabu bay fóot doom bu ko nday yoree përngal ba du jeex. bu ñu ñëwee ne la sa doom def na nangama ki nangama ki nangam ah wax na dëgg nag. léegi tuumaal sama doom moo ci des. pourtant doomam de def na nangam ak nangam ak nangam. xam nga ki ñëw di la kalaame ne la jógal ki sa doom. ndax def na nangam. Hmm. nga tegal ko ci hmm, pourtant de xale yi de dafa yaakaar naa ne yàlla nañu yàlla jubbantil rek wala yàlla nañu yàlla jubalal. waaye ñoom ñëpp a yem. yaa ngi ci erreur. Hmm. même bu ñëpp yemee te tey jii sa doom moo def. déglu ko ba yeggal. jéem cee jóg jóg ay wut ci ay pexe. te xam ne am na ci loo xamante ne bu sakkanee ba sakkan. balaa ki la kalaame ñëw di ci am wàll. yow ki sa wàllu bopp yow mii ndey ji yaa ci jiitu ba pare yaay séddale. kon lu la waay wàll ëppale la ci. ki lay sax dafa bëgg nga jàpp. ki lay ki lay karle cëm dafa bëgg nga jàpp macha allah xam nga li du moom de mère Dramé la yaa xajaa yàlla na sa jàmm yàgg yàlla yokk yu wér yokk la wér amiin amiin macha allah amiin mm. euh, parce que olof dafay faral di wax ne mm. kii ñëw di la wax sa doom nangam waaw mu ngi bàyyi xel sa doom dëgg la mais jamono ji ñu nekk mm. sañoo wax doomi jàmbu dara dara ndax loo wax ñu ne la seet ko sa doom mu ngi si léegi nag yow bu fekkee da nga nekk si kër da nga koy gis ba si kër yu mag yi waaw ba si wujj yi nga gis yow sa doom bi tux commencé na am ay dépression. Mhm. doo xalaat ne dafay tux de. waaw ku la déy na la sa doom ko dafay jëfandikoo nangam ak nangam. Mhm. nga tàkki ko histoire. Mhm. te am da ngay xalaat ne. dañ ko def dara. Mm-hmm. mais yooyu noonu ngay miimal sa doom di ko miimal di ko miimal ba xëy xëy ne këpp si sa kaw waaw boobaa nag yuuxu day ju fuñ ko foogewul fuñ ko foogewul fekk nag réccu day fekk jëf réccu day fekk jëf léegi nag bu fekkoon ne la ko déyee ndànk mm-hmm. ne woon nga kat am xelu de ànd ak sago parce mm-hmm. day ñëwaat buñ nee sa doom day utiliser nangam yow yaay da nga war am sago topp ko ba gis ko ñaaw njort waaw kay mais bu fekkante ne danga ne waaw lu jël ñu xëpp sama doom nangam ak nangam ak nangam xam nga dofu kër gi chaque jour mooy jur borom kër gi waaw ki ñuy wax mooy dofu kër gi. waaw chaque jour mooy jur mooy jur borom kër gi dëgg la. waaye buuru kër gi moom mooy jur booyu kër gi rek. buuru kër gi jur booyu kër gi. dofu kër gi jur borom kër gi. parce que jigéen buy sëy nekk buur. Mm. du mënta am mënta amaat buur loolu mënta ne. déedéet déedéet ñaari buur duñu ñaari kuy duñu bokk mbalka déedéet jigéen buy sëy nekk dofu kër gi ëllëg ak si fa papa ja taxawoon doomam moo fay taxaw bu ne dama ne ñëpp ni ko déglu xaar leen doomi diw la ñuy xaar ndeysaan yàlla nañu ko yàlla defal amiin mu nekk yoo xam ne dafa am solo mais yar yi bu roogalaatee rek ñëw même bu fekkante ne jeex na sax 99 pour cent dina ñàkk mu am ay benn pour cent yoo xamante ni dina des. Mm. Mm. yooyu ñu mën ko séddale ñu si des ku nekk jël sa wàll. muy lu am solo mm-hmm. euh, téye doomi jàmbur itam am na ci loo xamante ne doomi jàmbur ma nga cay nekk. Mm-hmm. te fekk boobu ki nga dëkkal la. Mm-hmm. Ndey Petaaw dafa nekk ak Awa. macha allah muy rakki xolam comme ni mu koy waxee saa su ne ñu koy nuyu au passage. Euh, am na ku nekk ci koñ bi yaa ngi liggéey di indi ci biir kër gi. di def ci njaboot gi. am na ku nekk ci koñ bi na ngay wax awa na ko yow kat sa yaay ji. kii la gën a teg place. ah lim la mag a tax daal wala moom poñet ci biir saak bi rek la ñuy xool. xale bi itam ku gis loolu. pourtant sa sarak mag ji fa muy amee nangam ak nangam waxu la ko ah mooy yow li fii da luy umpe. xale bi yaakaar ne yoon wu bon la magam di jaar ba tax muy am lu muy indi ci kër gi. mu daal di wëlbatiku itam dem ca yoon woowu le mu mel ne que exemple yu bari mën nañ ko ci cité waaye daal bokk na ci li nga xamante ni dafay yàq xale yi muy influence bi ci biti te kenn ku ci nekk imam doomi jàmbur danga ko war a jàppee comme sa doom dëgg loo ñimewul la digal sa doom wala loo bëggul ku ko digal sa doom bu ko digal doomi jàmbur mhm. ndax nag réew mi fi mu toll nii. Mhm. xàppatiku na yàqu na. Mhm. dañuy wax médias yi dañ ci am wàll. Mhm. dëgg la bu wér peng. woykat yi am ci wàll. dëgg la bu wér peng. waaye dëkkandoo yi ci koñ bi itam. am nañ ci wàll bu baax a baax a baax. ci ci lu wér macha allah tabarakallah eh, alhamdulillah. Eh, ñu ngi ñu ngi gërëm ñëpp xanaa ñu tàggatoo loolu rek ñu ngi gërëm ñëpp tabarakallahu eh, may nuyu nag sama jigéen rek ndey wuli si nekk ca Yoff maa ngi koy nuyu di ko ziyaara mm. di nuyu ñaari doomam ya nekk Amérique mu di ñaaña ak uh, assu mm. tabarakallahu di sama jigéen ñu baax ñoo xamante ni wax dëgg yàlla yàllaa ñu boole mm. maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu yéen ñëpp. di leen wax wa salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. doomi mm. jàmbur. ma bàyyi la nga tàggoo. waaw d' xanaa kon nañu tàggoo ñu rek incha bu ko mm. defee bu ñu ñëwee suba si alxamis yi ñu daal di mm-hmm. tëj nag crise des valeurs yi. parce que comme ni ñu koy di waxee rek bu ñuy jooyanti pour bëgg ñu ñëpp jub la. Mm. donte ñun ñu fi nekk sax nekk ay ndaw gënuñoo jub ñu si biti mais dañuy fexe di defar rek. dëgg la ñu ñëpp koo jëriñoo comme ni nga ko waxee jamono ju tas booloo mhm. kon di dox dox daje ñëpp rek di jaajëfal ñi doon seetaan sur la 2STV mhm. ba lëg ak jàmm si quatre ci merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax Ndey Petaw sama doom ji macha allah waaye itam jaajëfal itam imam mhm. euh, ci taxawaay bu am solo bi jaajëfal ki nga xamante ni rek mooy borom xartum yu baax yi euh, macha allah nit ñaa ngi naan patch patch man leen déedéet affaire yi nii lay wàccee léegi da jël rek daal di ko petit sol mu yomb lool donc képp ni bëgg nga cee am rek da nga koy woo ci 59 57 77 948. am na 59 57 am naa ko am naa droit yëgle ko. conférence waaw mu yow defal lu la neex. waaw ba kenn laal la ma dóor ko moom. <laughs> kon nag euh, xarit yi ak euh, tabaarakallaahu euh, fans yi. waaw le premier janvier. waaw allah am naa fa conférence bu may def ci. Euh, quartier Saïd Ndoy mhm. ca Thiès incha allah quartier Saïd Ndoy Saïd Ndoy waaw ca waaw Kamal Samb leen koy defal mhm. tabarakallahu moo nekk commerçant bu mag ñëw ci marché central mhm. maa ngi koy nuyu di nuyu papaam alhaaji Maxtaar Samb tabarakallahu kon nag conférence bi. Mm. samedi la yendu nag ba ngoon incha allah. incha allah samedi la ci quartier Sayid Ndoy mm-hmm. euh, képp koo xamante ni jot nga ko mën nga ko jot li ñeneen ñi ci des mm-hmm. incha allah. muy lu am solo ñu koy jaajëfal euh, bu baax a baax a baax moom imam mm-hmm. jaajëfal soxna Khady Falang Ndiaye. Euh, ma nga ca jandeer ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm ak wér ñaanal ci itam xaritam soppeem sëriñam soxnaam di léppam di pharmacie bu sëriñ Abdou Aziz Sy Al Euh, nekk fii ci Maris Adja Fama yàlla na sa jàmm yàgg mam Fama si euh, ak borom këram alelo mhm. ñu ngi koy ñaanal jàmm vraiment dañ ko jot démb ñu am ci mbégte lool mhm. yàlla na sa jàmm yàgg nga sut sa baay ba aw fante dese barke ba en tout cas Adja Khady Falang nee na affaire bi yow la ndax nag euh, mat nga liñ la doon doyee macha allah tey nag dangaa jël lépp sànni ko euh, jël sëy bi di ko sëy ba sëyaale ci ñoom ñooñu kon donc euh, Adja Fama ñu ngi lay ñaanal yàlla sa jàmm yàgg jàmmi képp koo xamante ne yaa ngi doon seetaan yàgg sama doom ji may yónnee yu bon yooyu yàlla na jàmmam yàgg yàlla jubbanti ko macha allah eh, yàlla def ko mag mu am ñam ndax loolu rek moo ñu tax a toog jubbanti rek donte nu nag comme ni ko Ndepeta waxee waaye lañ leen di jox jël leen ko te bañ ñoo topp ñun ci suñ li ñu doon incha allahu taala mbokk yi ba suba ñu dellu siwaat ci kàttanu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen jëf